Ah, kon nag ñu ngi ak soxna Mati ci bis bu mag bi di surtout waa Kër Dame Fall kon soxna Mati noo gisee bis bi. ah bëgg rek ak sant xale yi. te mm-hmm. waaye man bu dee yàlla na nga mën lu ko yàlla yàlla yàggal taxawaay ñi ci dëkk bi ak ci àll bi ñoo ngi sant ñëpp wax dëgg yàlla jox na noonu kenn ñi naa yaay ñi naa bàjjan mënuma leen a fay moom yàlla na leen yàlla yàggal taxaw xam naa war ngaa gërëm maanaam ñi ñëpp rek tund wi tund wi ndax tund wi nga xamante ni bokk liggéey bi nii dafa am solo bu baax ñaara tund wi nga xamoo xamoo kii Kër Daam la dëkk xamoo kii la dëkk xamoo kii la dëkk réew mi am na solo bu baax waaw réew mi moom ñoo fi naa ne réew mi ñoo fi ñoo dina jàppale dëkk ñoo lay manal maa ngi sant ñëpp di leen ñaanal yàlla ñëpp ñu yàgg ko fekke ay déwéni déwén kenn bañ a manqué di leen ñaan ngeen xéwal yi doole di leen ñaanal ngeen xéwal yi ngeen di def mu doole yéen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi lay suñ Cheikh Baye Fall suñ Cheikh Baye Fall siyaar na la baax muy am mbégte bu wér a wér a ndax bis bi bisu sant Cheikh Ibra la te yaakaar naa bisu moom mooy bisu Sëriñ Tuubaa mooy bisu Yonent bi mooy bisu yàlla kon loolu baax baax si laaj bi di fas ko ci guddi gi ak bëccëg gi lépp rek mu tege ci sunna ak li nga xam ne mooy salaatu mustaqim ndax wax dëgg yàlla dëgg la waa ji moom comme ni nga ko waxee rek moom ñu ngi si fas yéene ne si liggéey bi rek. maanaam taxawu liggéey bi ba lépp sontu ah ñu terale ko gani suñu Bàmba yi ndax loolu moo am solo ndax murit moom bernde lañ ko xam ne te comme dañ ñu murit bernde ñu ñëw si dëkk bi nga xam ne mooy dëkkub ah, Sëñ Saliou Fall ah, Sëñ Saliou Fall muy dëkkub Maam Codé te bu ñu waxee Maam Codé wax nañ Sëñ Saliou waxee Maam Saliou wax nañ ki nga xam ne mooy Sëñ Fall wax nañ Sëñ Tuubaa wax nañ ñeneen tamit kon dëkk bi dëkkub barkeelu la dëkkub mbégte la ay mag ñu baax ñoo ko sanc ñoo fi nekkoon di fi liggéeyal yàlla ba yàlla dogal maanaam ñoom ñu dem maanaam seeni doom des fi di ko liggéeyal ba seen i di taxaw lii nga ma ne mooy bis bi ah, kon mu mel ni suñ daam dañuy am mbégte ak sant yàlla bu baax a baax di ñaan maanaam suñu borom bi gën ñoo may ñu gën koo fekk yàgg fekki daf ànd ak ay xiiwal suñu borom def ay milliardaire nag si dëkk bi yoo xamante ni mën a liggéey si tool baax ndax dëkk bi ko a gis na ni mel wax dëgg yàlla maanaam dëkk bu mag ñu baax la ah dëkk bu yërmande laa dem ah waa ji nag moom wax dëgg yàlla baax ndax bi ma déggee si waa ji tam am nañ ay jëwriñ yu baax yi ñu ma boole yoo xamante ni ñu ngi topp sama ginnaaw bu ma leen ne def leen ñu def ma leen ne bàyyi leen ñu bàyyi ñu ngi taxawu di ko seelal si ñi nga xamante moom mel nañu ko bëggee ak ni ko yoonu murid bëggee mooy maanaam déggee si eh, yoonu seereer bi sax kon daal moom suñu daam am na sant goo xam ne moom moo maanaam mën nañ na lot nañ lool si tudd ko waaye feex na dellu suñu xol wax dëgg yàlla kon maanaam ñu ngi wax dëgg yàlla mu jógee ba kees ñëw fii nekk si dëkk bi maanaam nekk doomu dëkk bi nekk sëriñ dëkk bi ah kon wax dëgg yàlla bu baax a di leen jaajëfal di ñaan suñu borom bi gën a guddal seen i fan te wéral leen te yokk wërsëg bi barke borom barke seen euh, am solo kon xam naa ba ci kanam rek